ba tey ci seen scandale di jour nañ dem seetaan vidéo Moustapha Diakhaté li mu wax jëmale ko ci loi boobu ak ci ki nga xamante ne mooy président Macky Sall. li nu boolewaat mooy xeex Ousmane Sonko ngir par des principes pour le mal que ce gars a fait à notre pays looloo nu boole woon su dialogué anam euh, tuddati Ousmane Sonko su discuter ak moom bu ko jéem a amnistie mu jéem a gracier lu euh, gracier wala mu jéem a yu bon yi def ci réew mi. Macky Sall en face de lui. Mais si la, la, la stabilité du pays aussi, on Le pays est très stable, dara xewu fi. Ah, mais ñet ni dénen on non, loolu loolu bëgg démb la li li Ousmane Sonko rey moo ëpp loolu ci ay fen c'est-à-dire que bu leen dugg ci mel ne ndax njàpp il faut c'est-à-dire yéen les journalistes il faut pas assumer des, des rôles qui ne sont pas les vôtres di jéem daganal fenn politiciens yi noonu lañ def ba Ousmane Sonko taal dëkk bi c'est-à-dire que bu ngeen do leen bu noo ban instabilité mom ci c'est les éléments de langage qu'on vous donne on vous donne la pacification la réconciliation les sénégalais ne sont pas xool xuloo réew mi fi ay politique mauvaise, fi contradiction parce que toutes les démocraties les gens sont divisés Soit des États-Unis dañuy diviser soo Français, France dañuy diviser démocratie moom loolu unanimité amul ci démocratie donc bëgg a laytoo pacification ak unité réconciliation ay tappale la ay tappale mais lima la wax lu de moy képp ko xamné ne nga ci di dialogue ak Ousmane Sonko wala nga jéem ko genné kasso dugalaat ci politique civile trahir le peuple sénégal mais mieux que ça ku ku du ku idéologiser Ousmane donc ci jeu politique nan ngay def Samba Fall le yàlla na ko yàlla xare àjjana Ousmane Sonko lu bon lu ne mu yëg ko nan ngay def maam Diallo ñoko ko déggandoo nee na si toutefois président Macky Sall dialogué na ak Ousmane Sonko dafay daal di trahir sénégalais yi bu fekkee toutefois Ousmane Sonko a été libéré par amitié, par négociation en disant que voilà dañuy jël lépp gas si suul dafay tooñ sénégalais te nag yaakaar naa ni boo ko waxee ay saaga lañ la ciy tegal c'est pas grave bu méttiwul mais il faut ñu waxtaan wax dëgg Ousmane Sonko même bu fekkee Ousmane Sonko deful kenn lu lu bon deful kenn lu métti mais moom moo nekk auteur ci li am parce que man ci ñaar yi laa sukkandiku pour wax ko la première des choses Ousmane Sonko Sweet Beauté moo vingt 2021 problème bi ba ñu première fois ñu am 11 morts ak yeneen a yeneen toppaa ci ba tey bilan bi nekk 40 morts. Ousmane Sonko Mame mbay ñaam moom moo ko déclenché parce que moom moo toog wax li muy wax kenn forcé wu ko moom moo ko wax. en parlent de Sweet Beauté Ousmane Sonko kenn yóndiwu ko Ousmane Sonko am na garat am na maturité ak responsabilité boo xamante ne Ousmane sonk war na mën a am massage ku koy massage ci biir këram te du ko joral fitna Ousmane sonk mënoon na am ku koy massage ci biir këram te du jur fitna Ousmane sonk bu dee dafa feebar mënoon na am ku koy faj ci biir këram. pourquoi waa Pastef ñoom du ñu waxtaanee Sonko lan la doon défi Sweet Beauté quelle que soit sa maladie parce que bu feebaroon sax ba nga xamante ne dañ koy jël fob ko yóbbul ko aji Sarr wala yóbbu ko Sweet Beauté dafa waroon bañ lànk ne dew ma parce que du jëmukaay responsable du jëmukaay homme politique du jëmukaay koo xam ne dafa war a dagan baatu askan wi du jëmukaay koo xamante dafa war a nekk père de la nation parce que c'est pas joli bu fa deful dara sax dafa rafetul. Ousmane Sonko siwirbote c'est pas joli à voir mais duñ ci wax ñoom lépp rek Macky Macky yóndiwul Sonko siwirbote Macky Sall ni ñu xamee Adji Sarr ci coow li am naa yaakaar noonu la déggee turu Adji parce que sene nee naa leen Adji Sarr ak Sonko fii ci senegal ak monde entier bi amul ku leen xamul ñi juddoogul sax ñu ngi dégg mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko et c'est une histoire qui retiendra du a donc Ousmane Sonko c'est 40 morts Ousmane Sonko ñi ñu saccagé une boutique Ousmane Sonko oto yi ñu ba ci ay Les Légui ñu bëgg jël lepp teunk ko rek ne voilà nañ koy amnistier libéré ñi nga nañ de mars 2021 à nos jours non non man dama part personnel bëgg Ousmane Sonko mais day fekk ñu nous avons fu il n'est pas coupable désigner qui est coupable parce que quand on dit que qui il n'est pas coupable forcément il y aura un coupable Nous avons un crime qui gis nga un ko def ko wala mais crime gis coupable soit ñu xam ko wala ñu Les sénégalais parce que danger problème te amna Nous ñu ngi Nous les parents de ces 40 morts les frères et sœurs waa léegi ñu bëgg a baal Ousmane Sonko mu génn en tout cas président Macky Sall bu ko defee ci waxu Moustapha Diakhaté trahir lay doon te nag guerre civile sa mën na see juddu ñaanuñu ko yàlla. parce que ñi gëmoon ni Ousmane Sonko moo nekk ci fen ñi gëmoon ni Ousmane Sonko moo nekk ci ay tooxi na ñuy xeex di génnee dëgg di waxtaan di wax ba sénégalais ubbi seen xel yi xam ne dëgg bi fii la féete ñu bëgg a jëlaat yëpp xamu fële ne Ousmane Sonko moo nekkoon ci dëgg donc président Macky Sall li ñu koy waxal day doon dëgg complot comploteur la moo comploté lii yëpp dafa bëggoon éliminer Sonko pour quelque indiwaat ko non non non non yoon yoon la nañ ko atte fu dëgg féete ñu xam sama responsabilité nag boo waxee nag saaga yi moom xam naa ni maa ngi koy xaar nii di ko recevoir. You're the number. You're the liquid, you feel why. Good thing I'm